asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki ñuy suivre fu ngeen ñu mën di suivre rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm rawatina nag mbokki internet yi di nuyu waa ahlu làmb yëpp fu doomu Sénégal ne si àddina bi rek di bëggee làmb ñu ngi lay nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yow di ñaan Sénégal yal na fi yàlla def jàmm wala mu yokk jàmm ji boog corona bi ñu jaaxal yal na ko yàlla jëlee si àddina bi mais rawatina fi ñu ne muy Sénégal yaa di wax ne que tey nag bu ngeen gisee jotaay bi ñu toog nii ah ñu ngi biir Pikine kër kan idaali ñi ngi bi jiite ñi ngi production fan yi ngeen gis ko muy génn génn yu am solo di jox ay xale ay espoiru làmb ay avance pour bëgg leen a bëreeloo saison bi ñu jëm yàlla nañu ko fekkee te tal ko maanaam boo déggee loolu mooy que ni comme li Père Max doon wax rek ku bokk ci gétt gi yàgg maar naan ci meew mi du mën a ñàkk parce que li tax mooy mbër yu ndaw yi ñooy nekk ëllëg mbër yu mag yaa ngi dégg tey boo xoolee nga gis yankaaw gis ka nga xam ne nii moom moo di euh, xale ya euh, albarka kayre ñoom ñëpp ah, maanaam daal fan yi mu ngi wane boppam bu baax a baax ñu ci nuyu nag staff bi mu àndal yëpp ñu mel ni ñoom Modou Anta sans frontière borom arène bi Omar Saliou suma rakk moom tamit ak kan Paul Maurice borom marché aslem ah ak fay benn fay bu benn baraag moo koy nuyu di nuyu tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak mbër yi ah. gis naa fi ñoom màcc sama waa jooju dund ak gars yi Kolobaan yi waaye du ma fàtte maam ñaaw waaw la grand manager moom ndeysaan intellectuel laa ko tuddee yàlla na ko yàlla defal jàmm di nuyu képp ku nga xam ne daal yaa ngi fii toog wala nga ñuy suivre à travers le monde bu ngeen xoolee nag idaali laa toogal ni sama droite ki fi nekk mooy xaleb kolobaan bi comme na ko mu doon te waxee woon muy koñaa numéro 2 dëkk kolobaan waaye di doomu bowal ndax mu nga dëkk suma jumul diggante réew maago reefan ci zone yooyu kon ñu koy nuyu bu baax a baax mu war a bëri ak kan Ronaldinho doomu lébu dëkk tëngeej fu ñuy wax guy murit ñoom ñaar nag defe naa ne képp kuy seetaan làmb te xam làmb war nga xam ne ñaar ñi boo leen boole da xam ne ay bëreekat nga boole parce que li tax mooy kii nga xam ne moom mooy Koña équipe bu Dakar at bi mu jëlee drapeau chef de benn yoon moom bokkoon na ca mook ñoom Franc ñoom ñoo jëloon drapeau chef de l'État ko Dakar muy lu njëkk muy am ci Dakar moom mii ci xale yi gagné woon drapeau boobu ci la bokkoon kon defe naa loolu rek doy na ci ne ñu ne moom mbër mu mën a bëree la xale la macha allah parce que boo gisee ci taay mën nga koo xep waaye su bëree rek nga xam ne mbër mooy bëree loolu day am combat mujj nag da koo ñàkk digganteem ma kan xale bi dëkk yaraax ñu koy wax euh, wës jàmbaar waaw loolu mooy làmb du mën a ñàkk ki nga xam ne moom lay bëreel tamit moom ci ndam la jóge Clémenceau la mujj a daan muy Ronaldinho aw tur nag day day maanaam day nuru borom boo ko xoolee da nga gis Ronaldinho su bëree itam la muy def ci wàllu technicité waane nga ci Ronaldinho ci bëre ci football moom la yore ci bëre moom kon ñaari waane la idaali boole beneen combat bi muy dab daan bu bari ñi wala bu la neex sax nga ne Wally Seck numéro 2 dafa naa boobu la léegi ah wa dab daan bu jam ñaajo waa dama fee déggoon temps yi Waly Seck <laughs> waaye kon kon ñu kontine ca dab daan parce que gars yi dañu daan niroog Waly loolu nag mooy at yàlla lu mu bind ñaar da cay am du mën a ñàkk daf daan di koo xam ne ni boo ko gisee nii ak style bi sax bu ñëwee danga nga naan dumbër ndax dégg naa yàgg maar léegi mu naan mbaytin anak ngay bëree waaye xam naa ni muy ñëwee la ak yooyu waaye nag maar jàppal li ma la wax de bàyyi ci xel del bàyyi combat ba xel su bëre see di xam ne bëre ka tey bëree waaw ah, loolu moom maa la koy wax muy ko mën a bëre macha allah mais kii mu ko seqal nag moom <laughs> Mbaye Tine moom maanaam mën na bëre bu yàgg mën na bëre bu gaaw loolu moom ñiy seetaan làmb yëpp xam nañu te itam dafa mujj ci ay ndam yoo xam ne kera la mu daane ak na mu daane defe naa xale ba ñuy wax mbay Balla Gaye bu rëbës boo ko ko laajee dana la wax lu leer nañu ci kii kon loolu la idaal yi dajalewaat fii mu mel ni kon daal ah li ñuy ñaan yàlla daal mooy làmb ji promoteur yaa ngi taxawal combat muy bu mag bu ñu ñaan yàlla rek ni ñu koy defee nii yàlla na lam ji ubbi ci bisimilah rahmaani rahim jeex ci alhamdulilah rabbil alamin mbër yëpp bële bëree boog di moins que le meilleur gagne waaw parce bëre daanu itam du gàcce li bon mooy bañ a rek wala bañ a fonk la ngay def mais bëre daanu da ca am man si ni lam ci victoire am ci xaw ma nag xaaral ma jëkk parce kii moo fi jiitu moom moom laay njëkk a jox parole bi moo fi njëkk a ñëw muy Ronaldinho moom mu nga jógee ba Tëngéej waaye ñi d dak waa Géej waaye jiitu fi waa Colobane après kee doog a ñëw kon daa mel ni Tëngéej ak jam ñaajoo fi jiitu kon ñoom laay njëkk a waxal maa ngi lay siyaar Ronaldinho Babacar maa ngi lay delloo siyaar di santaat bu baax di jul Seydina Muhammad sang-sang yi di ñaanal sumay ñaari waajur yàlla na leen yàlla yërëm jégal leen taxaare leen ajjan loo xam te dama koy naxarul tamit di nuyu képp bi rek maa ngi lay nuyu yéen sama doomu nday mbër yi di nuyu sama adversaire di am loo xam te nag wax ji amaana jarul muy bari parce que dafa am loo xam te ne dafa nekk sama biir xol mu doon loo xam ne tey tey tey su ma doon ñëw max moom war a ànd doon mbëkki ji jaar si gaali yàlla def jaar fa ñàkk bakkanam moo tax tey wax ju du xaw a bari dama koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko jégal ko taxaare ko ajana loolu laa koy ñaanal du nuyu képp ku fi teewal. sa lan la. sama ndey la ñoo daan àndandoo di bëre. Ah, mbër la woon nu la yaakaar naa ne dab daan mi xam na ko. vie tuutu Mamadou Ndiaye numéro 2. Mamadou Ndiaye numéro 2. Rufisque la dëkk. waaw dafa ñàkk ba kanam ak sama beneen copain boo xam ne ñoo daan nekkandoo salle mutilation Habib maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko taxaare ko àjjana. kooku daa mbëkki woon. non non moom dafa dafa entraîné salle bi génne am problème boobu buy metti àgg këram mu daaneel ko mu dem hôpital ñu xëy ñu ne na dañ koy ñaanal yàlla na yàlla yërëm jéggal ko taxaare ko àjjana. li laata tamit benn appel boo xam te ni tamit damay nuyu CNG. du nuyu père Alioune xëy na tamit li mu waroon liggéey liggéey na ko macha allah yàlla tudd na tamit war na fay kon dañ lay ñaanal tamit jële lii ko fi jëlee tey yàlla na doon loo xam ne lu gën si moom la. parce que tey bu dul dara moom moo fi nekk comme suñuy kilifa ak kiñ fi indiwaat ñu am si moom yaakaar ah yaakaar googu ah, yàlla nañ ko fa fekk parce que tey bu dul dara ñoom ñooy suñuy kilifa kon ak lu mu metti metti rek. nit booy wax rek njëkkat si say kilifa parce que loolu mooy àddina àddina amul solo di nuyu idaal yi maa ngi koy sant bu baax di xam ne idaal yi di ko wax benn affaire boo xam te ni tey koy remercier bu baax bu waxantee dëgg rek yàlla tax man dama naroon dem dem fan billaay génn réew mi man laa benn yoon yoon la da nga naroon dugg ci gaal yi barki Serigne Babacar nii parce que tey dara amu fi man dama naroon dem mais bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax gaal yi moom bàyyi ko fi. nañ wax tey li fi am. idaali woo ma. na ma sa combat yàqu naa de laa bëgg. ma ne ko waa combat boobu amaana nag ñu ngi koy wax presque saison daaw ñu ngi ko doon wax. yàlla def waruñu woon bëre période boobu. Mm-hmm. xëy na période bii la ñu waroon bëre. Mm-hmm. mbër la macha allah. wane na ay qualité am kon tey tey nag yàlla def na ba yàlla boole ñu tamit damay santaat bu baax xam ne champion la ndaanaan la daan na fi ay mbër ay mbër daan nañ ko te dem na drapeau chef de l'état kon loolu tey jafe si mbër kon dama koy remercier foofu. am na solo parce que àddina amul solo. mais nag di ñaan yàlla bu bés ba yàlla nañu yàlla may ndam si dugg si kaw am na solo waaye man daal li ma xam mooy mbëkk mi moom nañ ko fi bàyyi man daal loolu laay waxaat gaal yi du solution même bu ne dëkk bi amul dara tamit d'accord. waaye dama naan est-ce que foo xaarul dara dara dina fa fekk nañu xuslu rek man mi di wax ak yéen ambulant naa lu ne def naa ko dakaar Plateau Ponty fu ne dugg naa fa marché lu may addina yàlla waxul kenn dara ñi dee si gaal gi nag ñu ngi leen di jaale waaye wax dëgg yàlla encouragé ñu kenn muy dugg ci gaal kon tamit defe naa promoteurs yi war nañ leen a gën gaal yi dem kon defe naa état du Sénégal war na a gestu promoteur u làmb yi parce que ñu ngi def loo xam ni ci benn côté ah ñu ngi dimbali mbër yi ndax kii dégg nga li mu wax te loolu la naroon a def ndax xam nga ñoom lib yi moom defe naa kuy dugg ci géej ñoo la ci war a raw ama ah man mi dëkk bawal maar ca ñax ma ak guy ak daqaar ya xalaatuma dugg ci déeg sa dugg gaal maa ngi lay bëgge mbër waaw onze billah bismillah ne woon yàlla jërëjëf borom Tuuba ginnaaw bi ñu sant yàlla jël ci bi sant suñu ñaari waa xam nga di nuy sama waa dëkk nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa Touba di nuyu waa Sambaay xam nga di nuyu waa Njoon Seeseen ci la waa Parba juróom-ñaari ci lay juróom-ñaari njëf ñëpp maa leen nuyu di nuyu waa Kër Laman Kër Caaf Ndondol Ngaan Ngaan di nuyu waa Kolobaan gi ma joge nag xam nga maa nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa Gunjaay Laañaar maa leen nuyu bu baax xam nga di nuyu waa Suum ma maa leen woo seen doom waa ngeen jàpp ci bu baax sama waa dëkk waa Touba Toul xam nga sama famille maam maa leen di woo bu baax a baax parce que combat bi xale du juum ñaari yoon. xale du juum ñaari yoon. non non teef lay nekk waaye woo sama waa dëkk di leen wax nag combat bi bee passé daa am lu ci xewoon lu bëri te bëgguma loolu amaat ci bii incha allah. bii loo bii loo bëgg mu xew ci. non bii ci kattanu suñu borom. Hmm. yal nañu yàlla may tarak fekkee kii suñu moroomu nawle la xëy na mën naa ne man sama grand frère la yaa ngi dégg mais moom ak kii ay morom lañu yaa may dégg. kon a kii dañuy mag xanaa. non du question mag sax. léegi boo nekkee sa may dégg. koo ñaa wax dañ koy ñeme. wax déggoo li ma la wax kii kii moromam la. kii man sama grand frère Ronaldinho ay moroom lañ. waa kon yow maanaam kii ngay bëreel moo la mag. moo mag fuuf. fuuf ku mën fuuf. maa mën maa doole maa ngi nekk xale. maa ngi kii woon. kii dama dama lay wax leen ci combat bi kii bi mu kii bi bi Tonnerre di bëre huitième combat Tonnerre sama mag Tonnerre sama mag laa la wax de boobu esaab moom mhm. yaa may dégg mhm. moom boobu moo Petit Niang ñoo bëre spécial bi barki Mouhamed bàyyi jëlee ngeen mu bàyyi ma fenn dama ne kii dinañ bëre mhm. te boobu ko ñu may ree lu leer laa koy wax na woon ci moom ba di ngeen bëre non dama leeroon na kii man ak moom dañuy bëre danga koy dab parce que dama xool yàq bi xam ne kii dama koy doole ci kanam mbër kii yaa ko ëpp doole. man xale laa 96 laa booy bu ndaw. wala sama kanam 96 bii passé. 96 bii nii booy bu ndaw laa judduma sax yaa may dégg kii nii dama doon rêve pour dab ko ci làmb pour ñu bëri barke alxuraan suur bi ñu génnee dama ne kii nii waa ji di dem nii di war a bëri Ronaldinho dinañ bëri war a bëri Petit Niang dinañ bëri. Mm-hmm. yaa may dégg. waaw te sama gëm-gëm laa doon waxee boobu mooy sama boobu laa bëri sama deuxième combat. moom dama war a sant gërëm parce que maa tax muy bëri grand combat. yaa tax muy def na vingt ans ci lam muy door a bëri ñoom nag ñu wax rek fu ne ñu ngi war di wax. mais mbër combat mooy wax wala na la ci fekk. barke alxuraanu karim. lu ko sama waa dëkk ñëpp dañoo mer dama bëgg nga xam lu nga sotti ko sa bu baax waa Touba Toul ker la man ker caaf ndondol ngaan ngaan mbéjee si jaan dañoo mer de te lépp ci yow lañ koy wàccee lu leer laa la waa Gambie bu a baax a xam nga di nuyu waa Gambie bu baax maa leen di nuyu di leen woo di leen wax ne combat bi la maa ngi woo nag Baye Sall Diop di ko nuyu bu baax a baax maa ngi koy sant dinaa taxawaay bu baax. ñaankat la. non Baye Sall Diop laa yem. Ah. di woo sëñ Ablaye Diop bu baax. mais nga yaakaar combat bi mer a koy gagné seen waa dëkk mer mooy tax ngeen gagné ko. non suñu waa dëkk buñ meree xëyuñ ci kenn fii barki sëñ Fallou lu leer laa lay wax sama waa dëkk dañoo mer man xam naa li ma lay wax parce que daa am lu xew ci sama combat bi passé daa may dégg su ma la waxee dañoo mer rek xam naa li ma la wax bonaat de moo gën a xam ban ban ba moom may nuuru moo gën a ba de combat si kattan suñu borom laa wax de bu arbitre di waaji sule ku yóbbu yéen na ngeen dégg bu baax ku yóbbu xool bu baax sinon du ngeen gis dara barke yàlla bu koy mbéj lu leer laa wax bu gaawul pënd fay am voilà dama bëgg combat bi yéen ñëpp ngeen déggee ngeen déggee combat bi di xool kenn ba du wàccee loxoom su dawul ngeen esaat ma dugal ko biir te ngeen lu leer laa wax kii de xaw ma ay gaal ak bato kii de waaju fenn kii mu ngi fii te dégg nga lim la wax arbitre génn seen diggante mooy tëngëj la lay yóbbu wax jooj nag yaa koy. xam nga dafa am baax a baax a baax di nuyu waa Touba Toul di nuyu waa Sambaay xam nga di nuyu waa Ndiol Sessène ci la waa Parba juróom-ñaari ci lay juróom-ñaari njëf ñëpp maa leen di nuyu waa Kër Lamane Kër Jaaf Ndondol Ngaan Ngaan di nuyu waa Kolobaan gi ma jógee nag xam nga. maa ngi bu baax a baax a baax di nuy waa Guy Ndiaye Laañaar maa ngi bu baax waaw di nuyu waa Suum ma maa ngi woo seen doom dafa am combat waa ngeen jàpp ci bu baax sama waa dëkk waa Touba Toul xam nga sama famille maam maa leen di woo bu baax a baax parce que combat bi xale du juum ñaari yoon. xale du juum maa ngi woo sama waa dëkk di leen wax nag combat bi bee passé daa ci xewoon lu bëri te bëgguma loolu amaat ci bii incha allah. bii loo bëgg mu xew ci. ci kattanu suñu borom yal nañu yàlla may tarak fekkee kii suñu moroomu nawle la xëy na mën naa ne man sama grand frère la yaa may dégg mais moom ak kii ay a wax ne mag xanaa. non du question mag sax. léegi boo ne kii sa grand frère la. waaw te kii dañ koy ñeme. waaw déggoo li ma la wax kii kii moromam la. kii man sama grand frère Ronaldinho ay morom lañ. waaw kon yow maanaam kii ngay bëreel moo la mag. moo mag fuuf. fuuf fuuf ku mën fuuf maa mën maa doole maa gën nekk xale maa gën li ci kii dama dama lay wax leen ci combat bi kii bi muy bëre kii bi bi Tonnerre di bëre huitième combat Tonnerre sama mag laa la wax de boobu esaab moom mhm. yaa may dégg mhm. moom boobu moo Petit Niang ñoo bëre spécial bi barke Mouhamed bàyyi jëlee ngeen mu bàyyi ma fen dama ko ne kii dinañ bëre mhm. te boobu bëre gu ma sama troisième combat ñu may ree lu leer laa koy wax. loolu na woon ci moom ba ne di ngeen bëre. non dama na kii man ak moom dañuy da nga koy dab daal parce que xam ne kii dama ko ëpp doole ci kanam. kii yaa ko doole. man xale laa 96 laa booy bu ndaw. wala sama kanam bu ndaw laa judduuma sax yaa may dégg. kii nii dama doon rêve pour dab ko ci làmb pour ñu bëri barke alxuraan suur ba bi ñu génnee dama kii nii waa ji di dem nii di war a bëri naa di ñëw dinañ bëri war yaa may dégg te sama gëm-gëm laa doon waxee te boobu mooy sama boobu laa bëri sama deuxième combat moom dama war a sant gërëm parce que maa tax ñoom nag ñu wax rek fu ne ñu war di wax. ñoom mbër combat mooy wax wala daa am téeméer la ci fekk barke alxuraanu karim lu bi sama waa dëkk ñëpp dañoo mer dama bëgg nga xam lu nga sotti ko sa bu baax waa Touba Toul ker la man ker caaf ndondol ngaan ngaan mbéjee si jaan eh, eh, eh. dañoo mer de te lépp ci yow lañ koy waaje lu leer laa la wax waaw di nuyu nag waa Gambie bu baax a baax a baax xam nga di nuyu waa Gambie bu baax maa ngi di nuyu di leen woo di leen wax bi seen combat la maa ngi woo nag Baye Sall Diop di ko nuyu bu baax a baax maa ngi koy sant gis naa taxawaay bu baax ñaankat la non Baye foofu daal laa yem ah. di woo sëñ Ablaye Diop bu baax mais nga yaakaar combat bi mer a koy gagné seen waa dëkk mer mooy tax ngeen gagné non suñu waa dëkk buñu meree xëyuñ ci kenn fii barki sëñ Fallou lu leer laa lay wax sama waa dëkk dañoo mer man xam naa li ma lay wax parce que daa am lu xew ci sama combat bi passé may dégg su ma la waxee dañoo mer rek xam naa li ma la wax. bonaat moo gën a xam ban ban ba moom may nuuru moo gën a yaa xam la ca xew de. combat bi si kattan suñu borom. nga la wax de. bu arbitre di waaj sule ku bu baax ku yóbbu xool ngeen gis dara barke yàlla bu laa koy mbéj lu leer xam naa bu gaawul pënd fay am voilà dama bëgg combat bi yéen ñëpp ngeen jege ngeen jégee combat bi di xool kenn bu wàccee loxoom su dawul ngeen esaat ma dugal ko biir te ngeej lu leer laa la wax. ngeen de boo ko fa yóbboog noonu di nga ko gaañ moom. kii de li mu wax yaa fi ne di yërëmtalu kii de yërëmtalu kii de xaw ma ay gaal ak bato kii de waaju fen kii mu ngi fii te dégg nga lim la wax. arbitre génn seen diggante mooy tëngëj la lay yóbbu wax jooj nag yaa xam nga dafa am loo xam te ne tey. kii moom na nee <laughs> na arbitre bi kii ne minute. maanaam li ngeen di wax ni est-ce que ay wax la ngir convaincre seeni supporters wala nekk la ci yéen lu ngeen nar a def bu bés baax parce que tamit wax ji nii yomb xam nga fii caméra yee tàkk sàll lañ ne kilim beeg yëpp a ngi tàkk bu ngeen waxee fi ba pare te du ngeen bëree est-ce que du doy waar. yaakaar naa ne mbéyum géej ñooy a sedd kilim bi kon kilim duñu tax a wax déggoo ma mi kay sedd. mbéyam géej mi moo gën a sedd kilim bi yaakaar naa ne kilim duñu teree wax wala duñu tax a wax ay ay wolof nag laa la wax. fekkee dégg nga wolof. waaw ah, déedéet man ma di kaw kaw. non fekkee dégg nga wolof. maa li nga wax. voilà nay leer. ku bëgg a kay boo demee mbeex ma kay da nga fa fekk 1000 personnes ñuy féexlu. kon jeex na kilim bi 1000 personnes. xajul kon kilim jaaxaluñu. waaw ok. dafa am loo xam ne ci wax nii. <laughs> am loo xam ne ne jarul wax bu bari am na loo xam ne bu jotee rek daañu ko jëf. turandoo de ku mën a football. <laughs> loolu après la. loolu après la <laughs> mais dinaa ko xamal ne moom nee ay mbokkam dafa mer dañoo samay mbokk seen xel dafa dal ah, yéen seen xel dafa dal te dama leen di woo ñoom ñëpp dëkka dagget ngor yow wakam seen du tubaab jolaaw jokkul cëw leen bari ñi sama mbokk lebu yépp di woo waa Tëngéej yëpp di woo waa Tëngéej yëpp di woo di woo nag waa Tiwaawan di woo waa Touba di leen xamal ne leen seen doom seen rakk seen am di jàmm am na combat combat bi ñu jëm nii nag doon na combat boo xam ne nii combat bu am importance. parce que est-ce xam ngeen combat bi fu mu leen mën a am importance déggoo si début bi dama la ko wax dama ne la macha allah naanaan la. et puis booy bi tamit tutoyé waat na la parce que nee na moom moo tax ngay bëre grand combat. waaw sant yàlla kon moom moo tax may bëre grand combat. sant wax kon sant yàlla. sant yàlla mais idéal yi du ma bàyyi ma fen am na yeneen combat yu nekkoon sama sama nopp toq na su noppam yow adversaire yi yu ko gën mais amaana nag idéal yi mii la yàlla tuddoon na moo war a tëgg sama komba idéal bi la yàlla tuddoon na moo a tëgg sama combat. booy bi am na looy moytu ci moom. loolu mooy lan. di laajte. mooy loolu mooy lan. maanaam mooy man moytu rek moytu naa ko maanaam man maam ñaaw ma ne la moytul mu song la moytul ngeen loolu foofu laay waxee quoi. aw ma lu may moytu si moom aw len lu may moytu si moom man li ma amoon solo mooy mu bees ba ne samay mbokk ñëw ñu daan bi ñibbi waat. lii ñu daan ka ñibbi si loolu kese ma amoon solo si lamba ju du leneen du kii du ku may daan. waay yorul bëre bi yorul doole ci. maa ko dàq bëre fuuf yemuma si catal weex bu fekkee day wax mais tey du bési wax. alxuraanu kan moo ko joon taabal ji ma daan def yi taabal ji taabal ji moom kër la bu leen xëj taabal ji mukk xale laa ni moom non xam naa loolu waaye bu leen xëj taabal xale laa ni moom eh, barki Seydina barki Seydina Muhammad bu ma la yenuwul yow daanu ma la eh, yow sa combat dañ la yenu dóor la si yow bee bis mi gën a neew dóor la ci ji moo la yenu bo nga taxaw dóor la suuf boo bëggee yow dañ laa yenu bo nga sonn eh déggoo yow xam ñooñu maa ndax yenu fuuf la koy wax pour nga xam ko eh. dama koy daan par force mu di ko neex lu leer laa la dama nga dégg loolu li war ci combat bi man la war yow waru la yow da nga dem ma dem ba sonn mënoo dem nga taxaw xaar ñu ci yoon bi ñu ñëw yaa may dégg eh. bu neexee yaa suñu borom dama lay sa sikkim bi bu ma la langaa moo nga xam yow billaay dinaa la duma dinaa la daan maa la di ree jooyal deret jooyal deret dama lay daan farfos mënoo si dara bu neexee yaa suñu borom billaahi wallaahi maa la wax kii nii ah. bar bi tege loxoom laala xanaa mu daw gën gën stade bi gën mu gën barrière yi. Ah, ah, ah, stade moom desu ko gën tëgg ak combat ba ci yow. Ronaldinho eh. ay règlement am ca làmb ja de génn. ki dañu war a may fii nii tuuti moo. de non foofu moom may loolu moom koo kenn du ko def loolu kay duñ ko def di ree duñ ko def di ndax man su keroogee danaa summeeku moom ci may nara am kay danaa summeeku kon songo bi dina bëri ñaar dinaa la ko xamal dëgg ma ma wax ma bu leen bëri fii moom bul lopp bu leen bëri fii leen ba arène arène baa ngi nii ñaari naa la ko amal. daan na baat jant bi sonal kay naa daan arène nationale bu neexee yàlla suñu borom. dinañ dajewaat si bu neexee yàlla borom. ci mbapat nga ma laaj fekk na ma nindi. waaw ndir ko ba laa fa bëre ñuy dugalaat ay nit. mu 15 combat di war a dem final ko bëri dóor. moo fa nekkoon moom waa la ma kon leer na wax wax de day tungam seen waaye loolu lépp su ma la jàppee yow loolu lépp mooy ñoom xam mooy ko ñaar ñii moom loo ci mën a dégg la ngañ jaañ xaw ma gar mi woon tafaagéey dëgg bàj seeraas combat jinne la day bëri tàkk-tàkk waaye lii combat jinne dana am tàkk-tàkk léegi nag damaa bëgg ngeen woote bu ko defee ñaar ñiy ñëw toog parce que idaal sax tey li tax ko yéex a jox mooy li mu boo ko defee doo ko boolee wax da noppi rek tey seetaan mooy dàq cim ndaje léegi looy mujj wax laay wax maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ñi ko yàggoon a bëgg dafa bëri. am na man ku ne woon na ma di ma yaa may dégg. waaw Idaal koy sant bu baax a baax parce que suñu morom la. kii moromam la man sama grand frère la yaa may dégg maa koy sant bu baax a baax parce que combat bi. ñi ne suñu moromu boog lépp lu waay waxanteeg moom ci combat yi na nga ko def. te nga andi xam ne nii ku gis combat yi dina sawar pour ñu la mais waxuñu nga andi fi comme ça calando bi fi andi woon combat yi passé na nga fexe ba na nga mobiliser ma daan dem maa ngi woon ak samay mbokk di woo waa Touba Toul ñëpp sama famille ma am maa leen di woo bu baa a baax a baax di woo groupe Touba Toul xam nga maa leen di woo bu baax a baax di woo Ameth Dieye di jiital Ameth Dieye maa ngi koy woo bu baax a baax Touba maa ferte maa leen di woo yen ñëpp autorité autorité yi ne ci groupe bi yëpp maa leen di woo ngeen jàpp ci combat bi. am na jaru ko quoi jeex na bu bés ba bu neexee yàlla suñu borom. incha allah yàlla na ko fekk yàlla nañu yàlla mooy képp ku fi teeku ne rek yàlla na yàlla may bii ñun man ka talkata fekk ko. ñun ñëpp àndandoo dem esat ci kàttanu yàlla incha allah bu neexee yàlla suñu borom ku naa de day jooyaat mais maa ngi woo samay mbokk yëpp samay mbokk lébu yëpp bàyyiwuma kenn damay woo ñëpp su may njëkk mooy sama benn grand boo xam ne daf may jàppale dafa tawatoon Amadou Sy maa ngi ñaanal tamit yàlla yëkkiwaat ko yàlla defal ko jàmm parce que macha allah combat bi passé jàpp na si bu baax a baax a baax a baax a baax ku mel ni Ségo jàpp na si bu baax te dama koy woot monsieur le maire Albin dama koy woot bu baax ñëw jàpp si di nag sama mbokk yi muy waa Thiawlène maa ngi leen di woo ñu ñëw jàppaat si bu baax a baax a baax a baax a As Diouf boo ma déggee amaana nit mënu la dab boo ma déggee na nga ñëw jàpp si bu baax. at rek ci combat bi parce que combat bi moom man xaw na maa jaaxal fi mu nekk nii ndax coow li mhm. nuyu naa la. Babacar maa ngi lay fay di wax ne auzu billaahi mina seytaani rajiim ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi di sant sama ñaari waajur di ñaanal sëñ Abdou kër Mbacke mu yàgg fi te wér di ko ñaanal Baye ji li borom léegi léegi di ko ñaanal Cheikh Ndigal Sène ñooñu ñoo may ñaanal fu ma nekk ñoom lay tëjee ñoom lay ubbee waaw di ñaanal sama sëriñ nag waa kër Cheikh Babacar Ndiaye borom bàyyi leen fi ba ci kanam ay ndaw lañ nañ ñu ñaanal am na lu ñuy bëgg ay gone lañ maa ngi nuyu staff ñu ngi production bi yëpp ku mel ni ñoom Serigne Faye Grand Paul Maurice ñoom Kaana ñoom Saliou Ba Abdoulaye Ndiaye ñi jàppale ñoom ci yëpp ay ñoom Omar Saliou xam nga ñoom Mour Anta dañuy jàpp ci 100 pour cent bi waaw ñoom ñëpp dañuy jàppale ñu ngi production mm-hmm. te ragal fiir day xañ wërsëg maa leen ñaanal suñu borom sàmm leen. Mm. di wax ne ñu ngi nuyu saal bi yëpp daal. di wax ne combat bi daal. Mm. combat la boo xam ne nan ñaan yàlla ñu fekk ko jàmm. kii dañu ne yaa ko eh, eh, sant sant yàlla rek sant yàlla la loolu. ndax tey defaluñu yàlla. lu tax maame a tey jii moom mu war a dem ci gaal yi ba ñu am kàttan nag man-man di di seq relation waaw di ko jox avance boo xam ne tey waa moo ko tax taxaw ndax euh, yàlla mm-hmm. da li muy bind lépp ci bis ak waxtu la koy def amaana li ñu wax rek combat bi am nañu ko bëggoon mm-hmm. ma ci sant nag maam ñaaw mi nga xamee ne moo yor Ronaldo Diom waaw di nuyu Sëwru Fall mi nga xamee ne tam moo yor ki yombalal nañ ma ko waaw ba pare yéene ma ko daal kon nag maa ngi ñaan yéene ji yàlla na ko suñu borom àggale mm-hmm. ba li ci bëgg lépp ñu àggale ko daal waaw di wax na nag bàyyi ji bi gën ñaan daal dina ah, baax incha allah rabbi kon gars yi kaay leen joxante loxo nag c'est sans sans problème da ngeen di jóg taxaw gars yi ji ak